nga xam ne xar mi ci ay loxoom lay seddee loole dañuy ñëw tuuti ci faj boo xoolee ñi nga xam ne dañuy yàkkamtee fees xar mi lakk yàpp yi ci jour bi lekk ko hmm. xoolal li ñuy yendoo duñ am jàmm ñaq yi day génn rek dëgg la de xar boo ko rendee da koy bàyyi mu rasu demal toog fee bàyyi ko mu rasu mu yëngatu waaw yëngatu waaw ba méttitu dee ba deret yi dañ nga raxas ba mu sedd guy nga ba mu set jël meeb lal sa zinc wala nga lal sa saako teg nële may ko bat ma may ko bat ma ah. mais pap gis nga bari na ñu baree bari bari ñi nga amee feebar ci bisu tabaski parce que man gis naa ay askan yoo xam ni bu ñu rendee ba noppi dañu koy wékk ba le lendemain ñuy doog a ñuy doog ñuy doog a ah, fees sax loolu gis naa ko ah, ci ay nit yu yaa ngi sofe sa santé. ndax bàyyil xar ne bisk tabaski bii. ñu baree bari bari tànk tàq tànk lakk ñu lekk rek yàkkamtee fees lakk lekk rek amul jàmm. te yëf yi nag euh, maanaam temps am na ci. ndax yow li ngay rendi dafa am bakkan comme yow. am njaboot. am bàyyi am ndey. yàlla na la rendi ko. rend googu nga koy rendi nag suñu borom moo la ko sant kon jërul mhm. mhm. yàkkamti yaa ko moom jërul yàkkamti yaa ko moom soo ko rendee nag bàyyi ko mu wequ ba sedd guyu nga fees fees bu set boo ko doon ki ki defoon daaw mhm. yaa ngi dégg euh, rend rek fees gaaw lakk lam nam defoon daaw ren na sensé programme bi xool ba xam nu nu mel kon mbir yi yàkkamti gi jëru ko parce que boo julli jee yenn saa Euh, xutba yi day yàgg ba nga xam ni da ngay dem sa kër yàkkamtee rey ba fees ba lakk ba loolu baaxul. waaw foofu tamit am na sew sew fu nekk. ndax ki la jiite. boo ko njëkkee rendi amoo tabaski. dëgg la kon kon nan xel loolu. waaw ah, jël suñu temps. waaw il faut ñu jël temps. waaw ne la wóor ne imaam rend na. Mm-hmm. yow boo demee sa kër nga soog ko rend. Mm-hmm. booy rend jël sa temps. Mm-hmm. bi mooy. tudd nga càmmoñ sànq. ci biir rend bi. boo wóoree ne yow càmmoñ nga mën a rendee ah. amul benn muskila yow mën ngaa rendee sa càmmoñ. ah bu dee gauche nga. waaw waaw pap jigéen sax di na ah bon waaw jigéen dina rendi. bu fekkee ne amul góor góor gu ko rendil. mu nekk fa daq rendi góor sax moom na rendi. waaw c'est vrai que gis naa ay jigéen yuy rendi quand même ndar. waaw waaw jigéen bu fekkee ne am na fit wi. Mhm. mën naa rendi xam na ni muy rendee. Mhm. na rendi. Mhm. mën naa rendi am man nag fekkee naa xale bu ndaw. bu taxaw jàkkaarloog xar bi papa ji rey xar bi deret ji bi mu génnee rek xale bi dafa daw yooxu ci la tëddee feebar maara day taali ba ni mu faatoo te ñetti at la amoon waaw jërëjëf ba tey loolu euh, la wax nga lu am solo mm-hmm. xam nga mag ñi li ma leen wax rek ci xale bi su tabaski boobu la tëdd feebar ba ni mu faatoo te trois ans kese la amoon xaw ma quatre ans c'était am bébé ah xam nga euh, euh, Pape ba ci sax am na mag ñoo xamante bi mënuñoo gis deret ju bari mm-hmm. loolu du ñëpp la ko yàlla may. Mhm. xam nga nit xel rek la. Mhm. moo tax mag ñi yàlla na yàlla yokk seen i xiiwal. allahumma amin. dañ daan def ci bisu tabaski bi bu ñuy ren dañuy jël mag xale yépp dem teg leen ak côté. waaw ñu bañ a fekkee bi waaw waaw. bu ñu rendee ba pare itam dañuy jël lanu rendee lépp gas ba mu xóot ñu suul ngir. Mhm. ñi nga xamante bi moomuñu seen bopp. ndax am na ñoo xam ne ñu seen bopp. Mm-hmm. bu ñu gisee dara ju bari rek boo moytu dinañ def musiba. Mm-hmm. dafa am ci ay nitam. Mm-hmm. am na ñoo xamante bi yaa ngi dégg mën nañoo toog di seetaan ñuy ren di du leen def dara. mais nag du ñëpp la yàlla may loolu. kon ñu bàyyi xel loolu. protéger xale yi waaw protéger xale yi. am na yenn mag ñu sàggan yoo xamante bi moomuñu seen bopp. bu ñu gisee dara ju bari sax dañuy daanu. kon mag ñi daanan def bu ñuy ren di xar. ak lu mu mën doon dañuy jël xale yi. dem denc. bi ci topp mooy. boo yoree ñetti xar. di rendi ñetti xar yi jàkkaaroo yow ma ngi leen ko daan moytu ko dañ daan laq. ñaar ñi waaw rendi benn ba noppi. dogg jëlaat beneen bi même paaka bi sax duñ duñ duñ waaxu di uti paaka bi euh, du waaxu di uti xar ma ak paaka bi. dëgg la de gis nga mag ñi. ci euh, sunu borom da leen parce que yi léegi day bëri ay xar yu ñuy rey. Pape da ngay gis koo xamante bi day xaabari xaabari rend xar mi lépp waaxu yor paaka bi. di utili xar mi xar mi di ko arrière parce que xam na moom fi nga ko jëmee moom li nga koy def xam na ko moo la gën a xam waaye yow mi am xel te suñu borom jox la xel. Uh-huh. yaa war a am xelum làq paaka bi làq ko ba rendi moroomam ba noppi. waaw bu mission bi bu soppiku toon taaw yu bari dañ dee. dëgg la de boo tiim ku tiim xar rek war naa bàyyi xel ne bu nekkutoon mbaaxul suñu boroom gi kon ba léegi ni message yaa ngi dàqe kenn ku dégg naan man de suba. fii laay dee dëgg la de kii di jaar ci. dëgg la de voilà. kon ñun. <laughs> heureusement man du ma taawa. sëñ El Hadj Malick. barke waxtaan wi am na.